njeexitalu opération révision liste électorale yi dina àddu ci ñaari fan ci weeru mai gi lu ko mooy ci ñetteel ak ñeenteelu fan gile la ñuy jàll ci contentieux yi waaye seetlu bi benn la ak ndaw yi song ak doole centre yile donc euh, comme ni ma ko waxee léegi rek ñu ngi fii euh, nekk fi ñun waa Grand Dakar ñu représentant de parti yi nekk fi ci nekkin bu rafet ndax euh, ñu ngi fiy bëgg a yàgg ñoo xamante ne depuis 2017 ba tey ñu ngi tase fii ci commission bi di représenter seen parti defe naa ne amul benn animosité boo xamante am na entre les représentants amul benn problème boo xamante ne am na ci suñu biir ñun ñi donc liggéey bi mi ngi jaar yoon ndax jeunes yi ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw ñëwin boo xamante ne kenn mësu ko gis parce que defe naa li am fii nii euh, ci inscription bii nii mësul am ndax ay ndaw yu déterminé ngay gis ndaw yoo xamante ne dañoo pare pour ñëw inscrire peut-être pour participer ci seen seen élection wu réew loolu nag dafa nekk loo xamante ne lu ama ama am am solo la waaw inscription yi comme ni ma ko waxee sànq rek inscription yi moom mi ngi jaar ci yoon ndax euh, suba gu ñu xëyee ñun bala ñuy ñëw sax nañ fekk nit ñi taxaw di ñu xaar dinañ taxaw di ñu xaar donc bu ñu ñëwee dinañ leen toppatoo parce que li nga xamante ne moom mooy moo daan indi problème rek ci bi moom mooy moo daan kon certificat de yi mais sous préfecture bi moom mi ngi koy gérer bu baax parce que képp koo xamante ne ñëw fi te indi domicile boo ne conforme na dinañ la jox euh, certificat de pour nga mën a def sa complément de dossier donc ne fii daal liggéey bi daal mi ngi fiy jaar yoon par rapport ak dialogue bi nag dañuy dañuy saluer bu baax li nga xamante ne moom la le président de la république euh, sortant def euh, le président Abdoulaye waat ndax nag dañoo nekk ci réew moo xamante ne jàmm lañ fi bëgg salaam lañ fi bëgg stabilité lañu fi bëgg te bu fekkente ne Macky Sall woote na ne opposition bi ñëw leen ñu toog waxtaanee réew mi waxtaanee élection yi xool nu ñu koy defee ku mel ni Abdoulaye Wade ñëw joxe ci jox ne fekk si naa leen ci loolu noonu ngeen woote defe naa ne deful lu dul lu baax. xam nga comme nii nii nii ko xalifa Khalifa Sall waxee ne moom tamit favorable na peut-être pour pour a ñëw ci loolu donc bu ñu sañoon ñëpp dañuy ñëw ñu fekk si président de la république buy neex ñu ko buy naqari ñu waxtaanee ko parce que Sénégal ñoo ko bokk te yaakaar naa ne après élection yi dañu ko nit dund quoi. waaw mhm. ah, dama la ah. si noo ah. ñu ne dañuy inscrire fii daal non man si réew mi laa bokk maa war a wote comme comme Sénégal yi. ndaw ñi nag gis am na nañu taxawaay mat sëkk nag moom. koo gis boo yeewoo fajar nga gis gars yi ñëw di inscrire yi man dama yeewu si faj laa yeewu maa war xëy ji nii waaye lii moo ñëwul daal. waaye itam seetlu nañu ni ci njëlbeen ba. sensibilisation yi desoon na loolu. population bi dañoo yéex a jóg xaw ma sensibilisation bi la xaw ma nu mu demee mais dañu yéex a jóg parce que on contesté nañ démb ne euh, ñoom dañu ñëw démb en masse par rapport que yeneen jours yi ni ñu doon ñëwee ndànk-ndànk. mais yàlla def na que y' problème euh, yëf yi mu ngi jaar yoon. Mhm. moom votants sont venus en masse ñoom fi ne nii ñoom moom ñoom la ñuy gën a euh, inscrit euh, ak transfert yi tam mooy ñi nga xam ne dañuy changer lieu de vote modification quoi waaw. Mhm. mais c' est normal yëf yi bi moo war a dem ñu waxtaan am consensus àndandoo liggéey comme Sénégal suñu réew la kañ nañ ko liggéey moo gën ñu pousse gaal gi mu dem que ñu koy këpp. man loolu laa ci gis mu président bu wootee dialogue ñoom dañu war a ñëw ñu waxtaan déglu ku la woo wax la baa mu jox la ba xam lan lañ ci lan la jublu waaw ndax gëm naa ni dinañ dinañ dinañ déggoo waaw ndax waxtaan moom déggoo la rek dinañ déggoo incha allah ginnaaw bataaxalu parti démocratique sénégalais ak taxawu Sénégal dialogue bi njiitu réew mi woote am na solo ci ñu teg ko di respecter principe de base yii la. maa fi teewal tey parti démocratique sénégalais fii fii si commission administrative exceptionnelle des listes de révision des listes électorales tey mën mën mën nañ ne depuis le 6 avril ba léegi tàmbale nañ liggéey gi mais nag li li liggéey gi li liñ si seetlu. depuis bi ñu tàmbale ba léegi moom daa meneen ndaw yi ak tamit ñoo xam ne mësuñu voté daa mel ne ñoo ñoom ñoo si gën a farlu pour ñëw inscrit loolu daal xaw nañ ko seetlu mu si inscription yi daal. waaw tam par rapport tam au bi tamit li lim si euh, jox sama point de vue mooy lu lu lu rafet la lu baax la dëkk tamit am na fenn fu muy toll. contexte bi muy toll il faut que ñii xam ne ñoo sekk géewu politique bi bu amee ay lënt leen ay jafe-jafe ñu mën a toog ñu waxtaan mais nag toog waxtaan boobu dafa am tam loo xam ne tam il faut que ñu ñañ benn camp bi xam ne na moom tamit un benn bi mu si la délai boo xam ne moom lañ jox nit yi ñu inscrit dafa xaw a gàtt il faut que tamit ñoom buñ ko mënee gën a prolonger loolu tamit da si baax en plus tam tam am na beneen point boo xam ne tam il faut ñoom ñu régler ko mooy point boo xam ne koo xam ne nit koo xam ne mooy gérer élection yi élection yi nit koo xam ne dafa far mënul warul mën a gérer élection yi parce que il faut que benn nit koo xam ne bu farul fenn bu neutre bu xam ne moom mën na gérer élection yi loolu daal ñun waa PDS ñun ñun dëxañ ko te te ñu bëgg ko te teg ko sur la table de oui euh, à la discussion au dialogue mais tam avec leur avec respecter yenn po ponk yi tam loolu tam da siy